stockage baaka wàllam déchargement ba loolee lépp Cosmos énergie jébbal na ko ñi nga xam ne ñooy waa BP yéen kaay gi nee na waaye nag ñaata la ko nga joxe ci ay koppara loole nag léeru luñ ko ni ki démb la ñu xam le lu ni mel la yéen kaay gi nee na ci xëlim ak Assane Samb muy Cosmos énergie di BP di gouvernement bu Sénégal di gouvernement bu Mauritanie di compagnie pétrolière nationale yi ñëpp jamono ji xam nañu importance stratégique bi nga xam ne moo am ci projet gazier boobee yéen kaay gi de la bàyyi mbirum gaz beek mbirum pétrole bi wax ci li nga xam ne mooy jàba jónge ci réew mi di coronavirus bi yéen a nee na covid 19 bi grippe bi nga xam ne jamono ji am na ñenn ñoo xam ne sonal na leen ak wàllum sibbiru bi moo tax pharmacie yi jamono ji dafay fees ba maara daytaal ñu bari dañuy dem jooyali ci pharmacie yi ngir jënd ay garab yéen a kaay gi nee am na ay médicament yoo xam ne sax jamono ji maanaam ma waaj manqué yéen gi di 24 heures nee na bu ñu waxantee dëgg coronavirus bi ak ni nga xam ne moom la ñu ko yoree ci Sénégal dara baaxu ci waaye ne ki nga xam ne mooy ndeyu mbili gi di Macky Sall Macky Sall ci boppam moo tële amatul pexe ci mbir mi yéen a gi di direct news nee na scandale escroquerie yu garaaw a garaaw moo am ci yenn ci ay clinique privée yéen kaay gi nee na bëri na ay clinique privée yoo xam ne dañuy sóob waaye amuñu li nga xam ne mooy ay service de réanimation loole nag musiba ga nga xam ne moom lay jur ña nga xam ne ñoo fay dem di ay cas grave dañuy mujjee ñàkk seen bakkan te ñenn ci ay clinique privée maanaam xaalis bu bare bari ay millions yu takko takku la ñu amee coronavirus génn di leen di jox te ñenn ñu amuñu ay service de réanimation loolee scandale giraawaaleeg musiba ma bu kumba munu koo weesoo yéen kaay gi du l'observateur ñu xëy fekk fa Thierno Alassane Sall nee na coronavirus bi l'heure est grave yéen a kaay gi di réew mi quotidien ak L'As xëy di ñu xibaar naan ñu coronavirus bi ma ngi wéy di def ay njombe ci réew mi waaye nag bàyyiwu fi sax ñi nga xam ne ñooy xale yu ndaw yi ndax hôpital Albert Royer bu Fann am na lu toll ci fukk ak juróom ci ay xale yoo xam ne dañoo amee coronavirus ñeenti xale ya ñàkk nañu sa seen bakkan journal bi nee na am na si koo xam ne juróom-ñetti la am yéen a kaay yu ndaw yi jamono ji ñoo ngi amee coronavirus ñoo ngi amee sax li nga xam ne mooy ay cas waaye nag li ci doy waar mooy amul benn vaccin boo xam ne mën nañu koo ñàkk koo xam ne amugul fukki at ak juróom-ñett yéen a kaay gi de la témoin xëy duñu xibaar naan ñu su dee am na ñenn ñoo xam ne na ñu ba maara daytaal yi mooy personnel médical bi téeméer boo jël ñaar fukk ya ak juróom amee na nañu coronavirus ndax protection bi nga xamante ni moom la ñu war a def defuñu ko ci ñoom yéen a kaay gi di wal fajri xëy yóbbu ñu réewum Guinée Conakry nee na ginnaaw Ebola bi am na beneen virus bu garaaw a boo xam ne feeñ na Guinée Conakry journal bi nee na virus boobu Marburg la tudd yéen a kaay gi di réew mi quotidien ak libération xëy dañu xibaar naan ñu Maimouna Bari mi nga xam ne ñeenti bi na gendarmerie ne njort nañu ne moo def giraawaali googi ca diwaanu Ziguinchor yéenekaay gi de la Tribune enquête Vox Populi Témoin L'Observateur ñu xëy fësal ci seen xët mu njëkk di ñu tàggee xalif général des Layènes di sëriñ Abdoulaye Thiaw ak sëriñ Abdourahim Seck xalifa Thiénaba journal bi nee ñi nga xam ne ñooy bokk kilifa yi nee na ñu kenn ku nekk na nga toog sa kër def fa ak ñaan yéen kaay gi de Les Échos xëy duñu xibaar naan ñu gendarmerie brigade de yëngu na ndax adjudant Adama Mbengue mi nga xam ne moo ko jiite woon tey ji la fa jóge lépp nag ma nga bàyyi ko ci Amadou Ba bàyyu Xaadim Ba mi nga xam ne moom la ñu fa convoqué woon doon ko déglu ak doon ko piccoog doon ko mbaaloo ci lu jëm ci wàllu mbirum local Africa yéen kaay gi di source ak xëy ci mbindum na bëri na ay commission yoo xam ne dafa xat ba maara moo doyul te nit ñi jamono ji ñoo ngay dem di bindu ci am na ay maire yoo xam ne ñoo ngi sàkk ci ministre de l'intérieur ngir mu yokk li nga xam ne mooy commission yi yéenekaay gi di Walf Fadjri nee na en tout ñoo fi nekk di wax rek waaye nag élection yi ñun gëmuñu ne élection locale yi dina am en tout cas daal yi am moom moo ñuy bett ñun waa Walf Fadjri yéenekaay gi de la témoin bàyyi mbir moomee wax ci Augustin Senghor mi nga xam ne jamono ji moo jiite fédération sénégalaise ba toogaat ci